doxee rek ñoom ñu ngi ko xal ci appel vidéo yi ñoo sonn kay douze mille jours <laughs> ñëw ci parrainage parlementaire xamoon ngeen ne balaa maa dem week-end dinaa leen sànni xeer Benno mu ne montre la voie Abdou Mbow ak compagnie démb dañoo remettre seen liste de députés ak participation symbolique au parrainage citoyen wax dëgg yàlla man tey damaa sonn waa Benno Bokk Yaakaar démb dañ doon jël seen parrainage yëpp ñu démb lañ ko clôturer ñoom ci seen biir. Mhm. parce que bu pare danoo bëgg a wàññi yooyu daal xool ba xam ndax lépp kii na balaa ñuy dem déposer ji le 11. donc démb ñoom ñëpp ñi nga xamoon jotoon nañu dajale parrainage yëpp danoo demoon a euh, joxe seen i seen i lim seen i seeni ak seen i kayit. kon ñoom wàññeekuñu. ah nee nañu daal dañuy dem daal dépôt ku nekk la nga dajale sa temps la ñu waroon a yëpp ñoom ci seen. 3 millions 700 yi fan la ko solay jëlee. Nabou xaw ma ci dara. damay laaj rek ci wàññi lañ toll. Nabou dam tey vendredi la damaa nam lekk cere de situation. <laughs> nu mooy dégg wala dégguma damaa nam lekk cere koor ci sama biir kër Nabou bu may ni benn problème bàyyi ma ma doxal. damay laaj rek déet xaw ma ci dara xaw ma ci dara. <laughs> sama yaay daan na wax naan xaw ma je ne sais pas tëjul kenn kaso. Ah, ba ci biir tribunal laaj la nga ne je ne lu ci juge man dara. kon nag Nabou je ne sais pas mu ne budget du Sénégal sous Senghor Diouf Wade Macky quand ba daal convoque l'histoire fàttaliwaat euh, taarix xone su ancien président yi ndeysaan enquête ñëw ci vote de budget ministère des finances et du budget Moustapha Ba mu ne droit dans ses chiffres keneen ki mooy 24 heures ñëw na ci góor gi Wade Ndoye mi nga xam ne daal li mu bëgg mooy ñu def benn débat bu Séné ak bu utile mhm. euh, euh, góor gi Wade nag cinquième édition du gingembre littéraire du Sénégal sur les ressources naturelles gingembre mooy jinjeer gingembre gingembre mooy jinjeer ah waaw ji jinjeer na dégg naa dafa baax na bu ah baax na moom wax dëgg yàlla dafa baax ci yaram baax na neex na moom jinjeer mhm. waaye saf na de mm, waaw mais neex na de dëgg la de aphrodisiaque la luy loolu non dañuy wax ne parfois yenn kii yenn nourriture yi aphrodisiaque la ce sont des aliments aphrodisiaques. bon je suis très jeune man je comprends pas. xam naa ci daal neex na. xam na lépp kii yor yor ñëw ci Rabadara mu ne procédure bi dafa emballé wu avocat Ousmane Sonko dañoo demandé président Adi Siré Ali Bami mu restreindre délai de jugement yi nga xamante ne moom moo concerné euh, mbir yi donc euh, Ousmane Sonko critique ñëw ci Moustapha Ba réajustement bu gestion 2024 bi daal acté nañu ko démb ci assemblée nationale. Mm-hmm. même chose Moustapha Ba mais tout le monde d'accord à l'assemblée nationale selon l'As Quotidien euh, le mandat ñëw it moom itam ci. yi nga xam ne moom mooy mil 177 727 agents yi nga xamante ne qui se partage 104 milliards. Euh, 96 000 francs CFA mu ne candidature bu Ousmane Sonko ci présidentielle bi nag caution bi ñett lan lañu ko def lañu ko déposé ba pare. ne ko nag ah, euh, kaay jëlaat sa kii kaay jëlaat sa kayit le quotidien ñëw ci budget 2024 mu ne état des subventions plus de 602 milliards accordé nañ ko à plusieurs euh, secteurs le regard volte-face cautionné dafa poser benn question par rapport à caisse de dépôt consignation bi euh, nga xam ne dafa retourner chèque u mandataire u Ousmane Sonko kii di Ayib Daffé les échos ñëw ci Amadou Ba dañ dafa muscler discours am ay attaqué da nga bëgg a dégg li Amadou Ba wax hmm, nee na le pays ne tenait qu'à fil ci boobu. waaw léegi. mu ne et je vous dis maay wax ak yéen mu ne démons yi ñu ngi fi ba tey les démons sont toujours là ah ak kii euh, Amadou kuy démons yi foofu démons yi ñan la moom laa bëgg xam les fossoyeurs de la République ont démarré leur entreprise de destruction aux parcelles acides yi ah, ah. lan la. ñu koy nuyu. il a fait l'effort de parler. man moom mooy sama candidat. kanti Amadou. Mm. mooy sama candidat. adoption budget. moo fi battre record parrainage de bi Sénégal des Sénégal ba tey 3 millions daa daanaka 4 millions te ñu ngi wàññi te pareeguñu mu ngi jëm ak ñun rek ci fichier bi net mbaa mu ëpp ko tuuti. ah mais ñoom nee nañ mën nañ ko ëppale. ci. ah kon am na ñu am carte d'identité parce que parce que délai bi 60 jours la ci 60 jours. Mhm, mën mhm, nañ faa mhm. dajale lu lu ëpp. non non kon am ñu dëgg la. Hmm. en tout cas daal yow daal Amadou Ba daal yow dina dajale du dajale am na amu li am ba des mooy Moustapha Ba moom wax dëgg yàlla ñëpp ne nañ ko wéew bravo na bu ko ñëpp ne nañ ko bravo félicitations congratulations félicitades ci li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi nga liggéey sept sage yaa ngi nii le condition de participation à la présidentielle ce sont les sept sages qui décident intégralité wu euh, set articles bi mu ngi ci biir journal bi euh, gis nga ni ci kaw yéen a koy lire bu baax kon jarul ma cee jaaraat mën naa wax ci Mamadou Moustapha Ba mii ah nga xam moom moo séduire euh, hémicycle kii nag mooy DG des domaines Mamadou Diop moom dafa dajale 72000 signataires nan waxante dëgg nag nabu nag ñii li ñuy dajale lépp bu nu ko compter war naa ma 3 millions war na naa la ñii war yi am na ñu bindu te nekkuñ ci fichier bi bravo wiiw <laughs> <laughs> nii nag ñoo mérité wiiw bravo. yow du ko dëpp sax yow bravo wiiw. bravo wiiw. <laughs> na bu yàqu léegi exclusive ñëw ci Mamy Ndek ak amadu Ba. ñëw ñuy Cheikh Baara bu baax. Cheikh Baara man waaw ah, Cheikh mooy iPhone Dubaay. Cheikh Baara Ndiaye ni mu leen lakkalee. iPhone Dubai man moom ku ma ko tuddee woon. ma ah, bàyyi télé. man na dama lay wax Cheikh Bara Ndiaye laa gis ci benn sénégalais boo xam ne buy live. seex mhm. Bara gannaaw Ousmane Sonko. Mhm. gannaaw Ousmane Sonko. Mhm. Cheikh Bara commencé na live. plus de vingt cinq mille personnes. nit ñi ko bëgg. macha allah il est les gens adorent Cheikh Bara. ma ni cofal tuuti ci sa sunguf su may rek dama ci may. may ma ci tuuti rek man dama bëggoon na Cheikh bu cofal ma cofal ma billaay garaaw man mën naa ko sax kii mën naa koo kii rek macha allah tocc mi kooku nii mm-hmm. mu kii may ma ci tuuti seex. Ah, ni tamit nawle dafa foor ni ko ah. xale yi di waxee. ma ne ko ci yëgoon réew am na ko fi doon rege. Cheikh ñu ngi lay nuyu waaye. <laughs> nga na ñu fi doon. rege rege man Bob Marley avant muy génn àdduna dégg naa dañu ko naroon indi fii. Bob Marley. mel na. Ah. Mm-hmm. na bu mii man na bu mii mu ne sûreté euh, euh, kii euh, man damay ah, ay man na billahi ah, moo gën de. Mbaara ñu ngi lay ah, bu la Cheikh desee rek di nga xam ne lépp dëgg la 540 de francs CFA yoo xamante ne nii dañu ko sàcc. loolu journal bi wax lii quotidien ñëw ci CDC chèque ba jëlaat ne ko njabet delloo ki di mandataire Ousmane Sonko du xam ngeen ko ayib. moo am essence kay la souveraineté budgétaire dafa nekk en marche indépendant moo nu koy xamal ministre bu mag bi moo tax ñuy journal bi di ci wax beneen bi mooy gis nga renvoi wu chèque Ousmane Sonko bi euh, journal ba itam euh, bind na ca bu baax a baax l'info ñëw ci candidat fantaisiste yi heurté le mur de la caution mu ne ginnaaw rëchu DGE désert ba ca CDC ah ak 30 millions yi neex na dajale du ñëpp ko am nag 30 millions <laughs> ce n'est pas facile 30 millions du ñëpp ko am mënagul am des nag yéen tamit xaar leen tuuti rek xam naa ñoom ñu ngi kii ñu ngi ñu ngi dajale incha allah ñoom ñëpp dinañ ñëw. observateur ñëw na ci assemblée nationale débrief. Mm-hmm. Euh, boo xamante ne show marathon bi wax na ca ministre des finances bi dévoilé euh, chiffres yi ci eeru euh, président de la république Macky Sall beneen bi mooy confidence exclusive donneur ak receveur de rein journal bi di ci wax Walf Quotidien dafa ñëw ci aide à bi yéen ñi nekk récréation ci biti. aide à la presse bi Walfadjri euh, Moussa Bokar Thiam mi ñu ne dafa asphyxier Walf Moussa Bokar ci li journal bi wax mu ne dafa lank bañ ba tëdd tali bi ne du leen jox seen cinquante million cinquante millions groupe bi nee na du leen ko jox ministre bi foulé au pieds les instructions de la hiérarchie ba tax journal bi kon di ko boole lan la. ñu ci ginnaaw nee na ñoom it dañuy émission. ah ñoom dañuy émission. yal na barkeel. waaw baax na. bi may xëy si tey ci suba du gis ngeen yat bi ma wéefee ci biti seen ngeen ko waaw pour yéen la nag dóor yu métti laa leen nar a dóor ngeen ñibbeeku ci weekend yat bi may indiloon pour ñoom la léegi waaw non yow léegi bàyyi naa laa kii bàyyi naa la bàyyi naa laa xuuxal ma ne yow kii Moussa Bocar Thiam joxal sama kii seen aide à la presse man dama xamul sax damaa waane rek di kaasalaate ne ñun sax danoo seenul aide fen réew mi mu ni Amadou Mame Diop annonce un avenir euh, radieux <laughs> source A ñëw ci version directeur général bu CDC bi mu ne on a une de venant ministère de l'intérieur bu ñuy indiqué turu candidat yépp ak ñi ci jot retire retiré seen fiche de parrainage euh, mu ne nag euh, Ousmane Sonko dafa bokkul ci list bi loolu moo tax ñu ne nañuy jëlaat xaalis bi jébbalaat ko ko. Mhm. yaa ngi dégg mu ne pour l'attestation am na nañu ba 48 heures 2 jours pour ñu def ko. Mhm. mais il y a d'autres niveaux de vérification xale yi nee nañu euh, kii ay du recevoir. ci semaine bi yëpp beneen bi mooy mais la première vérification c'est de vérifier si le candidat de la candidature mu ngi figurer ci liste bi euh, beneen bi mooy euh, ndax candidat yi à la candidature yi retiré nañu li nga xam ne moom mooy seen fiche de parrainage boo xoolee nag source A ci suuf kii ci ne sama xarit la kii c'est euh, Mamadou Salif Sané mhm. il est enseignant il est chercheur euh, droit public à l'université Gaston Berger Mhm. c'est un grand juriste par ailleurs membre bu organe bu régulation bu PASTEF sur l'éligibilité wu Ousmane Sonko wax na ci moom sama xarit bi Salif Sané mhm. Bassirou Diomaye fay wax na ci verdict cour suprême bi euh, ak procès bi nga xamante ne fait à la justice sénégalaise par le leader de PASTEF mu siq ak source A Euh, benn entretien de vérité bu ama am solo ñëwaat ci yenn point yu am solo yi. Mhm. am na benn émission bu mu defoon Sud FM cette émission a été partagée de partout. et eh, eh, Mamadou Salif chaque jour mën na la bëgg naa laa jël ci 2A TV ngay daw léegi nag comme yow da ngay wëndeelu di dem ay source A di dem ay site par force laa la wax dinaa la woo nga dugg lii nga dégg source A duma ci liir phrase waaye di nga ko waxee fii ci 2A TV ñëpp di la dégg ah, ndax nag euh, borom xam-xam nga boo xamante ne nii xam-xam ji mu am ci wàllu droit constitutionnel. Mhm. ak leen lu ci topp waru ko mën a garder pour lui tout seul. déedéet déedéet da ko war a connu ba nit ñi xam ko bu baax a baax. parce que mhm. quelqu'un qui a d'excellentes positions surtout qui a un très bon argumentaire maa ngi koy nuyu au passage Mamadou Salih Sané. Mhm. di nuyu waa Saint-Louis bu baax ak toute la famille. di ko mhm. ziyaate di ko ñaanal yàlla baaxeel liggéeyam. allahumma amiin Sud Quotidien ñëw ci démarrage compagne commercialisation bu gerte gi euh, xam naa lii moom yow ak Alpha mu ne encore un mauvais départ boo xamante ne jël nañ ko na bu muñal leen. te mooy ñëw ci clôture session budgétaire Moustapha Ba. daal mooy suuf amul benn benn benn une bu bu bu benn porox ndool dugal ci caaroy 44. Euh, 1944 ñuy fàttaliku nos martyrs. mën naa am gisaguma ko mhm. day wax dëgg yàlla. Mhm. mais mën naa am ah c'est vrai que c'était le premier. c'était le premier décembre ouais, c'était mhm. contre la Covid 19. corona dealers euh, mu ne pire que le virus même en tant que tel. journal Tribune moo ko ah Tribune lu tax defaatu leen fenêtre fii ngeen fësal seen première première position bi bu leen ko gaa wàcc di ngeen koy def ci kaw. leneen ku def ci kaw ku jël premier dafay célébrer dafay zibilé loolu dëgg Serigne boobu inauguré na benn siège pour benn gestion efficace ak efficiente euh, beneen bi deux minutes pour lire l'essentiel euh, mu ne présidentielle et de deux la CDC ne signe pas son code dette publique la Cour suprême euh, dafa nekk ci diggante doute ak euh, suspicion journal bi ñu la ko xamal Vox Populi ñëw ci CDC mi jël sec ba delloo ko xam naa daal vraiment am ngeen buzz rek ak actualité ak budget wu Moustapha nga ca wet ba boo ko seetee xoolal ayib moo am temps kay mën a déposer te mën a dem jox yi kayit ah yaa ay ñu dem ca làmb ja Bombardier 47 ans ëmm ak Gris ñoom 43 ans la ñu am mu ni euh, mbër yii yëpp nag boo moytuwulee ñu ngi jouer seen place su VIP Bombardier ëmm seen ak Gris Bordeaux du loolu. ok Balla Gaye 2 mii ëmm seen Tapha Tine ak Siteu Balla Gaye 2 dafa nekk entre trois feux. nabu bu la ci gën a ëmma seen tafaatin wala sitta duma seetaan làmb ah bu la arrangé Saudi Pro Koulibaly mu ne ak Mané le duel au sommet euh, record jeexal ci euh, lii ni ñu koy waxee mus museleer museleer museleer gisuma dara la museleer mii museleer museleer Sadio Cristiano Ronaldo du museleer wala mus museleer leer leer mais l'heure l'heure égale l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure et c'est l'heure de partir bon week-end ah oui je suis très forte Nabou Nabou <laughs> Dima mais l'heure <laughs> l'heure c'est l'heure après l'heure ce n'est l'heure et moi pour moi il est l'heure de partir Alaaji Ngalla excellent week-end internaute yi excellent week-end waa régie excellent week-end ajaratu Nabou Cole Kani Cukkubebe excellent weekend ba lënd ak jàmm